ba gis nañ kii di maître El jouf Diouf di génn fële ci benn télé de la place daal di def ab sortie boo xam ne nii ku ci nekk ni ki dem rek teg nga ci sa gët mu mel ni nag moom maître El Hadj dafa ñëw avancé bu baax a baax ci kii di Babacar Touré waaye itam la mu la yàkk ci biir boobule boobule boobule euh, émission ku ne gis na ko lan ngay wax ci loolu. waaw euh, gannaaw bu ma nuyoo sénégalais yëpp di leen di leen di leen ñaanal atum bi gën. at yi ñu fi weesu yëpp surtout bu daaw bi nga xam ne wax dëgg yàlla mhm. euh, ci fitna la commencé mhm. te ci fitna la jeex mhm. di ñaan sunu borom mi nga xam ne mooy mayee jàmm mu may sénégalais yi at bii ñu nekk mu gën ci at yi te élection yi ñu jëm mu doon ay élection yu apaisé loolu laay ñaan yàlla euh, leneen nag li Maître El wax ci Babacar ture wax dëgg yàlla man amul ma solo man li ma amal solo mooy euh, man duma man paruma man awma camp man awma position bi ma taxaw man journaliste la journaliste d'investigation ça veut dire enquêteur la c'est comme tey boo porter plainte da ngay dem ci enquêteur day jóg mu enquete ba pare da ngay jébbal procureur man awma procureur suma procureur mooy askanu Sénégal loolu moom d'abord su ma tegee loolu ba pare euh, ma wax euh, rappeler ni sorti Me El la Diouf du lu ma bett parce que lu ñu doon xaar la bu ngeen ko xoolee 48 heures wala 48 heures moom balaa ma wax defoon naa vidéo expliquer sénégalais yi ne leen coow lii ñu nekk coow lii nga xam ne mooy agité loo Me El Hadji Diouf parce que Me El Hadji Diouf amatul benn programme amatul dossier kenn mënutul bëggatul liggéey ak moom parce que moom sa vie problème mu Adji Sarr Ousmane Sonko moom lay yenn moom lay féetewee donc nañ ko bàyyi lool parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire ñun am nañu yeneen ak yeneen ak yeneen yu ñu def léegi nag. waxoon naa ko sénégalais damay koy profité waat ci antenne bi bamtuwaat ko moom rek moo desee coow li parce que li sénégalais yi di fàtte 400 avocats lañ am barreau bu Dakar 400. Mhm. baro bu Sénégal du moins parce que y' a pas de barreau Dakar. Mhm. barreau du Sénégal la 400 mhm. avocats lañ am ñaari avocats. joor euh, Diagne et compagnie def nañu consulter nañu avocat yu bari bari bari pour jox leen dossier bu caaxaan bi ñëpp bañ nañu ñaar ñoo ci nangu mooy Abdou Dialy El Hadj Diouf El Hadj Diouf booy fréquenté avocat yi booy fréquenté tribunal ñëpp dañ lay wax soo amee dossier boo bëggee mu am xumba mu am tàcc mu am fecc mu am baara euh, baara mbay dañuy jël El Hadj Diouf loolu ñëpp di wax. léegi nag moom buñ ko dugalee ci dossier bi dañ ko dugal pour baara mbay bi ak loolu waxoon naa ko damay profité waat antenne bi mu wax ko Me El Hadj Diouf doo sérieux Maître El Hadji Diouf mësul gagné benn procès à la régulière procès bu normal procès tappale procès politique procès deal yooyu rek lay def donc loolu moo ko bàyyi ci dossier bi Abdou Dialy Kane mi nga xam ne mooy l'avocat bi ñu dénk dossier bi xam na ni dossier bi tappale la xam na ni dossier bi fen la bu fekk buñ ko fayee ba pare euh, lu ñuy wax honoraire ak yooyu moom ci la ci pare waxatu ci mu ci see def benn déclaration ku ci def déclaration mooy Maître El Hadji parce que ñoom li seen euh, seen objectif waxoon naa leen ko depuis le mooy gàqal deru Ousmane Sonko loolu rek la du pour tëj ko kaso du pour dara mais wax ni kii di woote ibaadu kii di woote nii moom euh, salafiste la en réalité mais mais wax jooju mais dès le début dès le le le le euh, comment on appelle affaire bi le trois février lañ ci la ci dans la nuit du 2 au février la xew le 5 février laa def benn vidéo expliquer leen ne sénégalais yi li ma leen ragalal mooy ngeen génn ci biti ñu am ñu toppee leen pour euh, participation à une organisation non a attroupement atteinte à la sûreté de l'État waxoon naa ko sénégalais yi ne leen fa lañ jëm parce que yii yëpp dossier bi tàppale la pour ñu mën a dem juge jugement pour ñu dem tribunal mais yow juge d'instruction bu fekkee ne affaire bi dem na instruction wala yow enquêteur wala yow procureur da am ay éléments yi ngay teg mhm. dossier bi amul élément dossier bi waxi aji Sarr la waxi Ousmane Sonko te Ousmane Sonko sax dafa nekk sincère dafa nekk franc gis nga bu taxawoon ni mësuma woon dem fële bu fekkee ne new na mosuma dem foofu. kon Ndeye Khady mooy wax Ousmane Sonko ñëw na fi jëkkëru Ndeye Khady mooy wax Ousmane Sonko ñëw na fi. Euh, Adji Sarr mooy wax Ndeye Ousmane Sonko ñëw na fi mais Ousmane Sonko bu taxawee mu ne ñëw ma fa ko prouver ni ñëw na fa. parce que li nga xam ne moo war a prouver surtout mooy téléphone yi bu ñu bornee téléphone am da xool encore seen dossier tappale dëgg la parce que seen. pour la première fois ñu gis un dossier sérieux un dossier criminel amul li nga xam ne mooy kii euh, réquisition téléphonique. téléphonique. parce que bi ñu ko seetee ci numéro Ousmane Sonko gis nañ ni waa ji mosu faa demee ak téléphone am. d'accord lan moo si des waa ji moo taxaw mu ne waa dem naa fa. loolu lañ am. Mhm. à part wax naa ko dama koy waxaat. maître maa ngi dégg barki démb mu wax ADN du dëgg. du dëgg laa ci mën a wax. ci loolu bëgg a avancer donc. amuñu ADN. ADN bi muy wax noonu. parce que bu fekkee dafa wax ADN kon saa veut dire que euh, dossier en cours bi mu wax ne dinañ ko ubbiwaat file ki ki fan wala sax ci mois de janvier bi wala sax 2022 bi. donc mën nañu am yaakaar ne ADN boobu muy wax ci la sukkandiku pour wax ne dinañ ubbiwaat procès. loolu ci wax di yow dong sax ñu ci bëree bëri ñu xam ne ànd nañ ci dossier bi nee na dañoo teel a wax. ay tappale ak yooyu yëpp nee na dafa teel ndax mu ngi ci loxo justice. waaw li ne mooy lan. Mhm. mooy bi Sénégal yi yëpp jot. Mhm. mooy mennum procès verbal ba ci am ci procès verbal bi euh, dañuy constituer lépp li nga xam ne mooy élément yi nga xam ne moom lañ am moom la ñu euh, nu ñu koy waxati. Euh, dajale. moom la ñuy dajale lu ñu wax su su voilà mooy élément yi ñu constituer yoo xam ne dafa bokk ci dossier bi mhm. amu ci. test ADN boo xam ne def nañ ko et puis bu ñu naroon def test ADN foofu c'est très important ñu expliquer ko nit ñi li nga xam ne mooy section de recherche bu gendarmerie euh, euh, première anomalie bi ci am du section de recherche moo waroon sa enquête affaire bi affaire bi puisque Dakar la xewee division des investigations criminelles moo waroon a gérer dossier bi cest à lii mooy wane ni précipitation bi ci nekk division des investigations criminelles moo géré un dossier parce que c'est un dossier c'est une ci biir ville Dakar dikk moo ko war na enquête d'abord ñu tëggi loolu li nga xam ne mooy section de recherche bu fekkee ne ñoom dañu am réquisition wàllum viol commandant section recherche mooy bind réquisition au médecin gynécologue bu hôpital du beneen hôpital parce que gendarmerie ñoom kii la ñuy liggéeyale euh, hôpital principal du yow yaay demal sa bopp ab gendarme ngay àndal mu dem jox enveloppe bi médecin bi ubbi ko mu defal réquisition bu pare ñu ne la yow demal sa yoon enveloppe bi dañ koy jox gendarme mu indi ko yow xamoo ci dara. kaaw Adji Sarr. Mhm. dañ ko jëlee euh, dans la nuit du 2 février daw ak moom dem seeti euh, docteur Ousseynou gay bu hôpital CTO Ousseynou gay nag jël si ay mesures am ay ni ñuy waxee jël si ay ay précautions mu ni kii ma gis de 11 heures plus de 16 heures de temps kenn yeggul ci kawam kii ma gis xam na góor yàgg na loolu la ci wax. procès verbal bi moo génne loolu rapport médical bi loolu la génn kii tëddee nañ ko yàgg na ngeen baal ma ci kaddu gi kii depuis 16 heures kenn tëddeewu ko alors que ci guddi gi muy yegg si ça fait moins de 16 heures parce que yëf yi ay booru 22 heures la yaa ngi ma dégg mm-hmm. donc ñoom ñu ne def nañu prélèvement ñu denc ko amuñu droit parce que prélèvement euh, d'abord il faut que la commandant moom mooy requis requérir pour ñu def ko il faut en tout cas un officier de police judiciaire muy requérir médecin pour mu def ko buñ ci paree ci loolu euh, résultat yi ñu jox leen ñoom dem nañu ci guddi gi ñu ne indi nañ seen kii commandant bi ne leen jëluma lii ok le lendemain encore ñu delluwaat encore chez le même médecin alors que la norme moo doon ñu dem fële parce que li tax ñu dem ci médecin bi malgré les précautions malgré médecin bi li nga xam ne dafa daw ay responsabilités am waxante woon ak moom ba nu pare te leneen encore lu important li ngeen kii moo tax ma ne leen tout le c'est un complot de bras cassés ay cuune ñoo ko tëgg parce que Adji ci guddi gi bi ñu ko doon jël ils étaient trois hommes dans le véhicule parmi eux il y avait des méde il un médecin d'ailleurs paasu médecin bi moo leen permettre ñu mën a violer couvre-feu parce que bu fekkee ne yaa ngi fàttaliku jamonoy couvre-feu ñun journalistes yi avocats yi médecins yi ak députés yi ñoo am droit circuler maa ngi dégg euh, Boursine mu ngi wax démb ni El Hadj Diouf euh, comment il s'appelle Euh, Ousmane Sonko dafa violé couvre-feu violé wul benn couvre fa am na droit. circuler comme man ni ma daan circuler comme juge ju ni ñu doon circuler comme officier policier ñu doon circulé d'accord Babacar Touré journaliste d'investigation la Thioro c'est vrai euh, il faut nga nga génn ci terrain bi am yu bari yoo xam ne da nga koy xam mais am na yoo xamante ne ce sont des questions tellement profondes nun ngay dem ba amee ko ou bien y a des yoo xamante ne mhm. c'est tellement proche ou bien venant de de l'autre camp yoo xamante ne ñoom ñoo day wax yenn information yi waaw xam nga dama koy wax tout le temps les journalistes ñun dañu constitution bi daf ñu reconnaître les mêmes droits que les officiers de police judiciaire à la seule différence que ñun mënuñu daab kenn daf ko garde à vue ñun la rek lañ mënul am mais lépp luy technique yu enquêteurs yi di dem di def def enquête technique yooyu moo war a nekk les techniques du journaliste ça veut dire constatation audition constatation audition c'est la base de tout léegi nag li nga xam ne mooy complot wu Adji Sarr bii balaa ñoo ci yegg ay fan ay fan balaa ñoo ci yegg euh, tout le monde que quelque chose se préparait dans ce pays qu'un complot évident avant vous étiez avant avant avant avant avant avant avant avant okay. avant tout le monde savait qu'un complot évident se préparait booba en conseil spécial la woon Pierre Goudiaby Atepa dama ko wax ne leen y a un complot qui se prépare je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants wax leen ni mais côté mœurs lañ leen di feeñee bu ngeen ci xoolee balaa ñuy wax Ousmane Ousmane Sonko defe naa Pierre Goudiaby bi moo si jiitu ak waxu abi sa abi abi abi Ndour ok ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko il a averti depuis très longtemps parce que bu muy fréquenté dafa doon fréquenté benn salon bu nekk Mermoz mu jógee ci salon Mermoz bi pour mu ñëw fii frère am bu tudd Mohamed bu nekk Paris dañ ko informé ne ko Ousmane Sonko na bàyyi salon bi muy fréquenté parce que gars yi am nañu deal bu ñu tëgg ba pare te j'ai dit aux gens jour bu may génne wax leen ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk tëgg complot bi nit ñi dañuy tiit ay jeunes Casamance lañu ñoo xam ne ñu ngi ci APR dem demande ay quelques kilifa pour ñu jox leen xaalis pour ñoom ñu exécuter Ousmane Sonko li ñu na paaka xamu nu ñu koy wax tey sa mbokk euh, voilà sa mbokk moo koy daas c'était ça mais Sonko moom il s'est entêté parce que li tax mu ko ne di fréquenter foofu d'abord première chose boo expliqué na moom mais surtout dafa fekkoon benn xale bu jigéen boo xam ne Badji la sant bu nekkoon ci salon Ndeye Khady donc euh, le fait que mu fekk foofu euh, il s'est senti à l'aise et il a cru qu'il a trouvé un parent moo tax mu continuer di fréquenter salon mais pourquoi vous n'avez pas alerté bu fekkee na xam ngeen ni ñu ngi doon euh, préparer euh, genre Fatou mhm. su ma la buñ la doon wax mhm. ñaata ay alert la nit ñi di joxe waxuma la Sonko mais ci keneen ak ci keneen ak ci keneen. wax naa ko benn jour ne leen euh, comment il s'appelle président sa sec bi ñu jëlee dossier am dossier présidentiel am pour bloquer ko ci campagne présidentielle man maa jël suma téléphone ma alerté ko wax ko ni tel à tel à tel endroit fa lañ lee bloqué huit signature nga soxla boo ko defee ñu valider la sa sa sa sa comment appelle sa candidature. bëri na ci yu mel noonu ci ay complot ba ci man sama bopp c'est-à-dire ñoom la plupart du temps xam nga Sénégal dama leen wax ne Sénégal bi ñu xalaatoon démb Sénégal boobu nekkatul. et les officiers de police judiciaire les agents de renseignement nit ñi nga xam ne ñoom ñooñu ñu ñuy contacter bëgg leen dugal seen i complot ñoom bu fekkee ne tuni ak salaire bi ñu leen di jox tax na ñu bëgg a def li leen gars def loo mais bëgg seen réew bëgg ko sa pays bi changé day tax ñu alerter ñu à temps à plusieurs reprises man il y a quelques jours dañu sama oto pneu avant yi la ñu dévissé de sorte ko su ma dawee daw daw pneu yi euh, goujon yi dañuy damm oto bi def tunu loolu moo nekkoon seen programme parce que man ak sama équipe dañ doon dem Bamako dañu daw ba Kaffrine ma dégg pëkk bi ma ñëfee oto bi mu ngeen à 120 kilomètres heure ma ñëfee ba stabiliser oto bi bi ma xoolee dama gis goujon yi quatre goujon yëpp dem nañu ba ma woowee mécanicien mu xool mu ne ma mais sa pneu yi devant yëpp la ñuy dévissé xamoon naa man am na complot non non nit a ko def dul jàpp naa parce que man amoon naa ay alerte mais sama alerte moom c'est li ñu doon exécuté ci man Casamance lañ ko doon defee ñu boole ma ni ay MFDC wala ay rebelle wala yu mel noonu quoi comme ni ñuy def ay Samsidine ay dara ak affaire yooyu gars yi ñuy rey à la tabaski wala yu mel noonu après dossier bi du yem fenn pour man ci loolu doon dem alerte nañ ma à plusieurs reprises ne ma bàyyil Casamance bi ngay dem mais surtout booy dem bàyyil di dugg ci àll bi mais ces alertes là ça revient toujours dañ wax lii dafay xew à tel instant léegi nag yow yaay anticiper bu ñu ñëwaatee Babacar ci li nga xam ne moom moo indiwaat wax ji mu di euh, sorti maître El Hadj Diouf ni ki mm-hmm. Mm-hmm. def na ko te mu nekkoon lu yàgg a gis ci yow ci sa kaw ci Ousmane Sonko waaye itam euh, ci Pape Alé ak keneen mu di euh, Pape Ndiaye bi nga xam ne ni tey ji moom moo nekk ci wàll gis nañu acharnement boobu acharnement boobu nga xam ne ni tey ji mi ngi koy mi ngi koy def nan nga gisee loolu ak nan nga jàng ba pare gis nañu avertir que. Hmm. su noppiwul di nga. dinaa génne leneen waaw kay di nga génne leneen. lu garaaw bëgg nañ nag ni ki tey jii. Hmm. ñu daal di xuus ci loolu. Hmm. Babacar puisque bëgg nañ tam ñu ñëwaat ak yow. ci maître El Hadj ak euh, moom tamit viol bi nga xam ne nii jiiñoon nañ ko ko fële ci ci France bëgg nañu exactement. <laughs> waaw xam nga luñ ko jiiñ France. waxu viol boobu France la ma fekk. port maillot euh, méridien porte maillot lay fii xewee. ndeysaan kenn koo xam ne tey foog na ni xaritam la. man moom moo woo ma nekk Paris mu ne ma Babacar dawal ma hôtel tel Maître El jàpp nañ ko fa pour affaire de viol. ah bon loolu dama koy damay bañ a. puus ci loolu mbir moom fekk nga ko. Paris la ma fekk ko waxee daw nga dem. Paris la ma fekk dem naa bu ñu koy jàppee bu ñu koy auditionné PV yëpp gis naa ko après bu ñu koy jugé maa ngi tribunal mais damay bañ dugg. est-ce mais finalement moom ci jamono jooju xamoon na ne yow fekke woon nga loolu lépp. ba xamoon na loolu lépp mais <laughs> xam na ni xam naa ko. Mm-hmm. Euh, El Hadji Diouf bi ma mujjee waxante ak dama wax ak moom man dama doon wax ak El Hadj li ma boolee man ak moom mooy dossier Batolo Joola bi ñu ko defoon mu nekk avocat mu dem fexe euh, pour euh, bu ñu doon toppee bu ñu doon toppee officiel sénégalais mu ñëw fen sénégalais yi excusez-moi l'expression mu ni leen France toppeetul kenn dara gagné naa victoire le lendemain ma génne benn article boobu maa ngi liggéey l'observateur ma génnee wone li nga xam ne muy décision bi wax leen ni du dëkk ma ne leen nag averti leen autorité sénégalaise képp ku fi jaar si ñi nga xam ne moo doon ku tuddoon Gomis xaw ma nan Gomis ainsi de suite ma leen bu ngeen jaaree France na leen jàpp léegi nag Gomis boobu xam naa gëmu ko gëm na li Me El Hadji Diouf wax benn jour da doon dem voyage fan mu def escale Paris nag ñu ne ko ràpp téye ko pendant plus de deux ans wala trois def na ko sous contrôle judiciaire en France loo xam ne euh, Maître El Hadji Diouf mosuma ko baal wax na benn booy ne ko sa booy boobu traître la parce que voilà ainsi de mais li nga xam ne nag mooy sortie mi Maître El Hadji da ngeen di fàtte benn élément problème yi yëpp lan moo ko indi Maître El Hadji Diouf bi keroog bi Ousmane ko jógee wax 94 milliards yi la ki nga xam ne mooy Mamour Diallo mi perte liggéeyam après parce que da ngeen koy fàtte dafa perte liggéeyam dafa jël un certain nombre de personnes. pour ñu défendre ko mooy ay journalistes yu mu yu mu yu mu yu mu engagé mais aussi ay avocats. moom Mamour Diallo Mamour Diallo parmi ces avocats il y a Maître El Hadj Diouf donc contentieux ak euh, ak Sonko mu ngi commencé parce que li ngay def mooy da ngay sa client da wax ne kële lu muy wax dafay fenn. fa la commencé. kon kon Mamour Diallo dafa jàppoon ne li ko tax a ñàkk liggéeyam Ousmane Sonko ci mais bien sûr dossier boobu la dossier 94 milliards yooyu la boobu la même bu fekkee ne ba léegi mu ngi ci ngooy loolu moo tax il faut ñu xoolaat encore la position euh, du président Macky Sall parce que ñi nga xam ne dañ leen épingler pour ay détournement xaalis pourquoi et au nom quoi mu continuer di liggéeyat ak ñoom. parce que tey Mamour Diallo c'est quelqu'un d'important à Louga gis nañu ba mu ngi liggéey euh, mu ngi recruter ki nga xam ne mooy euh, la dame euh, Aminata Mbengue Ndiaye pour mu ànd e. ak moom donc c'est à voir quoi est que xaalis boobu duñ ko luubal après duñu détourner pour dem financé ay campagne électorale il faut qu'on se pose des questions donc leneen Mamour Diallo bi mu ko jëlee comme avocat léegi phase boobu jeex na en même moment ñu ñoo taseeg benn xale bu jigéen bu dof boo xam ne da doon liggéey ci suite beauté ñu dàq ko fa yi tax ñu dàq ko euh, scoop la bu ma leen di jox fii ci plateau bi. ab député bu bu parti Macky Sall bu très actif bu noonoo ak Ousmane Sonko la ñu fekk aji Sarr yéeg ci kawam toog ci kawam di fóonante ak moom nday xadi betti leen loolu moo tax ñu dàq aji Sarr xam nga yaa ngi dégg. Ah nday xadi di wax révélation bu dëgg a ngi yéen ngi di wax dégg nday xadi di wax. dama ko dàqoon mu ñëw saraxuma moo tax ma jëlaat ko. daf ko bett ci kaw député boobu. député boo xam ne ndeysaan nag bu jege Touba <laughs> fara yem fara yem. mais mais mais mën nga ñu ñëwal soit ci ci député bi kan la exactement. non du ma leen jox tur député bi mais liggéey man xam naa député bi. Mhm. député bu non non ak Ousmane Sonko la. xool leen dans le rang des députés yi nekk tey actuellement au parlement dañ ko fekk ci kaw ndey ci kaw euh, xale bu jigéen bi toog ci kawam ñuy def seen affaire yooyu quoi. <laughs> Mhm. comprendre nga. kon donc léegi nag loolu la ñu dàqee loolu la ñu dàqee Euh, Adji Raby Sarr ci euh, octobre octobre deux mille dix deux mille euh, dix neuf ci deux mille vingt ci Sweet Beauté mu dem nag ci diggante bi mu delluwaat ci madame fay mi nga xam ne mu ngi fi Liberté 6 mhm. mu fay liggéey comme pa parce que lu mu koy defal mooy nettoyer ci appartement bi ci kaw ak ci suuf léegi ne bu fa femme bi nekkule bu ñaw nit ñi ñëwee pour jël seen ñaw moo leen koy jox ainsi de suite mu nekk ci koñ bi taxawaalu di wax ni man star laa woon damay ainsi de suite ñu ne nag léegi dañuy tëgg suñu plan pour ñu noppiloo Ousmane Sonko c'est ça la base de ce dossier léegi nag Mamour Diallo qui revient encore qui récupère Adji Raby Sarr qui entre en à fait normal que taxawaat loolu rek moo si dugal El Hadj Diouf léegi nag son acharnement coûte que parce que mais euh, acharnement bi ay ay euh, taskatu xibaar ku ci mel ni yow Pape Ndiaye mi ci Walf. Euh, waaw man garaawul man li ma mën a saaga garaawul xam nga man. mais démb li mu leen wax tamit dafa. garaawul pour man loolu amul solo xam nga lan moo am solo xam nga lan moo am njariñ. Mhm. lan la ñu mën a def ba Sénégal avancé Sénégal nekk ci jàmm mais wax ni Babacar Touré ay fen lay wax te lu muy wax chaque jour bu la ngeen ne bu ñu ne fen la le lendemain ñu teg ci seen bët keroog bu may wax dafa seen kër nee nañu du dëgg dañuy porter plainte ani plainte bi da nga ko gis Adji Rabi Sarr dafa nee nañu Adji Sarr Rabi Sarr ne li Babacar wax dëggal dama toxu mais pour la première fois ci histoire du Sénégal kan mooy toxu di tëb balcon dañ ko mës a gis dafa tëb balcon daw. mais loolu ko. waaw mais parce que parce que non waaw parce que du ay éléments yoo xam ne filmé nga ko. Mm. te boo ko filmé it mënoo ko diffuser du ay éléments yoo xam ne filmé nga ko mais da nga am ay témoins clés. Adji Raby Sarr fu mu yeewoo lu mu def matin midi soir j'ai un compte rendu détaillé de ce qu'elle fait la wax. lu ma bëgg xam ci dëkk bi dama koy xam. bon ñu ñëwaat ci parce que ce qui loolu euh, day na waar de parce que dama bay tëb miir kan ma war a mën a gis. à ce moment euh, ba ba mën laa jox information. ñi ko doon wër ko doon wër. boole ci nee naa la dafa daw nekk ci station. ñu ne lu dëgg. ma boole leen ci bi mu toggee ci station bi jaaxle. mu woo Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye nekku fa loolu fii laa koy waxee encore. Mhm. dafa jël taxi arrivé payé. bi mu yegsee Sidi Ahmed Mbaye récupéré ko ci guddi gi xamul fu mu ko yóbbu parce que ñemewu ko yóbbu seen kër parce que euh, ci coow li gars yi dugal nañ ci Maodo Malick Mbaye tudd ko mais il n'a rien à voir il n'est pas au courant de cette affaire là mm-hmm. te xam naa nit ki xamin boo xam ne si avait été informé de cette affaire là booy bii du ci dugg. est-ce que aussi amul ñoo xamante ne Babacar Touré euh, mënuñ leen jox ay informations yoo xamante ay fausses informations la rek pour xam ne ne yéen ngeen di euh, dem ci enquête bi ba jeex. ba ci ba jeex man ñi may jox man ñi may jox information. mooy ñoo xam ne dañuy jël information jox ak nguur pour mu attaquer beneen nguur. comprendre li ma la wax. yéen a bokk foo dama toog. fii laa toog ngeen ne aji xale bu jigéen mu tudd encore jaari euh, sow ngeen ne réer na. adduna bi yëpp di ko wër. ngeen ñu woo ma dañ ma saraxu ne ma ngir yàlla seetal ñu ko. <laughs> ma dox si premier jour ma am ci ay faisceau. deuxième jour man ma man may l'un des rares journalistes bu jógee Ziguin euh, comment on appelle Dakar fii dem seeti ay waajuram parce que am naa fi ñu ma ko localiser la te du localisation xam nga en matière d'information matière de renseignement mhm. da am ay plusieurs sources nga recouper waxuma information source journalistique mais man je fais au-delà de ça mais na am ay sources yu encagoulées yoo xamante man du ma wax ak source encagoulée man ñi may waxal xam naa leen ay 15 ans xam naa leen ay vingt ans nekk naa ak ñoom ci ay dossiers yi dossiers dossiers maa jóg taxaw ne leen Sénégal xale bii ñu nuy wër mu ngi Belgique moo dem demu boppam réerul pare naa ci coow li ba tey bu ngeen mën a delluwaat ci kéwuloo ci li ñuy def di ngeen gis affaire pourtant kenn waxu ko Adji Raby Sarr nee naa la matin midi soir li mu def am naa rapport détaillé xam naa fu mu dëkk les différents appartements yi ñu ko luweel xam naa leen fi mu daw dem ci xale bu jigéen bu perdu boobu nekk euh, Mermoz mu héberger ko këram la kan mooy xale bu jigéen boobu lan mooy viam lépp xam naa ko donc c'est pas son premier déménagement. lan lii du premier déménagement dafa fàq. li li ma yi ma li ma tudd mais parce que dafa daw dafa doyal. Adji Sarr lu muy def mooy cuisine ba douche ba. Sañba ci kaw doyal boobu. am na démb loo évoqué ci benn vidéo mi ngi circulé déjà ci internet bi ci diggante Adji Rabi Sarr ak kii di euh, <laughs> Maître El Hadji Diouf donc. Euh, bëgg nañu bëgg nañu. Euh, Babacar ci kaw loolu nga détaillé. nga détaillé comme jox nga ñu léegi scoop ci ki nga xam ne moom moo di Adji Rabi Sarr. ak Sweet Beauty ak Ndeye Khady Ndiaye benn député APR. bëgg nañu li nga li nga li nga xam noonu ci Maître El Hadji Diouf nga am loo xam ne ni même bu dul lépp ngay détaillé nga am loo ñu ci ñamal. non non dama ne puisque dafa acharné wu démb surtout que nag. ci lu mu wax si man parce que ay saaga la saaga taxul fenn mhm. man li may wax mais moom su amee fitu taxaw euh, jiiñ la lii yow xam war nga am fitu taxaw wax baax na baal naa ko lu ma wax baal ko dama ni Maître El am na fu muy yegg dafa am li tax mënutul jege Adji Sarr danaa lan moo waral loolu non loolu beneen affaire la mhm. mais du Adji saar kase du Adji Sarr kese Adji Sarr ak beneen xale bu jigéen ak beneen xale bu jigéen bi nga xam ne mooy hébergé woon Adji Sarr du ñu laaleeg Maître El Hadji Diouf waaw parce souvent <laughs> <laughs> bay mésentente a wax ñu doon jàppale Adji Sarr ñu bëri dañoo noonu ak moom maintenant te am na ay mouvement ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi ci derrière te ba tey xam nga xam nga fu muy neexee xam nga fu muy neexee mu defati conférence de presse ne ko Adji kaay maa fii loolu du ngeen ko gisati mais mais mais comme loolu duñu ko gisati. tey gis nga gis nga Babacar. Euh, Fatou Babacar ak fi ñu xam fi ñu bëgg exactement nga nga laal fa. Mhm. donc dañu bëgg nga ñëw ci foofu. exactement lan la Babacar xam ci diggante Adji Sarr comme ni nga xamee Adji Sarr la koy taxoon a jóge Sweet yi il faut nga dikk ci loolu lan nga xamal maître El Hadj Diouf digganteem ak Adji Sarr. ak xale bu jigéen boobu lan moo nekk problème bi. <laughs> expliqué ñu exactement boobu wax boobu waxam jotagul mais maître El Hadj li mu def. mais su maître El Hadj Diouf yaa ngi ci dossier wax na wax na test ADN dina tax ñu ubbiwaat li nga xam ne moom moo di wax te waxu test ADN donc ça prouve que ne ñoom ñu ngi taxaw seen position ba léegi te ñu am espoir ne dinañ am tey yow def loolu yaa bu la neexee mais amuñu benn élément Ousmane Sonko tey ku mu tegaloon fii kaamil alxuraan ma teg sama loxo ñu séqul dara lu sexuel ak Adji Raby Sarr Adji Raby Sarr nag Ousmane Sonko Ousmane mbaa yow li nga xam ne mooy li am mooy Ndeye yi moo def erreur de casting mais Babacar ci li ngay avancé nii est-ce que da nga ko fekkee. waaw euh, lañ ko bëgg a traité parce que ci affaire Adji Sarr <laughs> am na ñu bëri ay journaliste partisan peut-être nañoo wax ne Babacar Touré euh, ci euh, camp wu Ousmane Sonko la bokk peut moo tax parce que joxe information dafa nekk lu sensible bu fekkee ne da laal bu fekkee côté nguur bi parce que deux partis opposition ak pouvoir. bu dee da nga laal bi mën nañu wax ne partisan nga parce que côté <laughs> xam nga man maay le seul journaliste sénégalais. Mhm. maa jël équipe. maay benn journaliste. Mhm. bu dugg ci salle suite spa beauté bi après scandale bi. keneen dugg fa. man maa gis reportage bi man maa gis léegi man maa gis buntu yi man maa gis ni kër gi tëddee man je suis l'un des rares ak waa Sene ñoo xam ne xam nañu Ibrahima Koulibaly yendu nañu ak ñoom. gis nga gis nga gis nga néeg bi Ndeye Khady nekkoon ne kii bi nekkoon euh, comment il s'appelle Adji Raby ak te néeg bi buntu bi du tëju mu nekk fa ak Ousmane Sonko ak néeg bi nga xam ne jëkkëru Ndeye Khady mu ngi fii dafa mel man ak oustaz nu ñu toogee xanaa kon foofu la nekkoon bi mu nekkee ak député boobu def foofu la moo tax mu ko foofu la moo tax Ndeye Khady ñëw dugg ci biir mais lu bokkul ak loolu mhm. lu bokkul ak loolu ki nga xam ne mooy euh, Adji Raby moom moom laa doon wax léegi ne la Ndeye Khady moo def erreur de casting mais moo def erreur yu bari parce que soupçonné woon na quelque chose que euh, Adjara bi préparait quelque chose elle était hyper agité am na ñu xale bu góor mooy Sidi Ahmed tey xam nañ ni moom la qui était fréquent dans la maison léegi nag li ngay def ci lu mel noonu xam nga ñu ngi wax ni envoyé na SMS ni mu ngi ñëw xam nga mës ngeen dégg ñuy wax waxu envoyé na message ni mu ngi ñëw dafa am benn naar ñëwoon pour ñu maase ko mu ñëwoon pour ndey seeti ndeyxat yi fekku fa ndeyxat yi mu envoyé ko message ne ko maa ngi taxaw sa place booba ak léegi di la xaar gisuma la <laughs> ndeyxat yi mu ngi hôpital mënu loon wax mu def capture d'écran écran message bi mu envoyé ko Adjara bi mm-hmm. aji bi mu jotee capture d'écran bi dafa ne ne am na client bu taxaw ci biti booba ak léegi mu lay xaar aji dafa jël capture d'écran mu envoyé ko Sidi Ahmed mooy capture d'écran bi donc nit ku mel noonu boo soupçonné ni mu ngi préparé benn affaire doo ko garder sa kër mais erreur bi mu def mooy daf ko bàyyi ba li ciy xew yëpp xew ci léegi nag euh, li tax ma ne la xam naa am na certitude parce que Adji Raby Sarr yéen ñëpp ñu ngi dégg barki dem maa ngi dégg El Hadj bu ko neexee mu ne xale bi am na 16 ans bu ko neexee mu ne xale bi am na 21 ans bu ko neexee mu ay ay ay ay ne ma sax bàyyil di ko wax taxawaaloom du fii la commencé. mais hmm. nag taxawaaloom du fii la commencé Adji Raby dafa jëloon appartement fii en face mu bureau. Euh, bi comment on appelle ko koñu waali foofu ci Ouest Foire ak benn copinam ak benn copinam bu tudd Nabouja lañ fa doon def xam ni ko dañ doon entrée guddi dañ doon entrée bëccëg maa ko wax assumer ko nañu porter plainte donc ci li nga wax noonu assumer que ñu war a porter plainte déjà yow loolu dawoo ci dara mais li ma jaaxal mooy li nga daw ci sa diggante ak maître El ak li nga expliqué ci vidéo ba tey loolu moom ma jaaxal daw moo tax na nga war a wax exactement nga xam ci maître El ne euh, du ñuy wax rek cooki ko waxee nga a wax ci dossier bi la li nga li nga xam ci ci maître El Hadj Diouf diggante Adji ci xam rëy na. bu fekkee day tëj dossier bi pour ma calmer la yëfu caga la yëfu caga. <laughs> waaw yëfu caga yooyu la ñu ngay wax ñu exactement lan la ci dossier lan la ma ne. waaw lan la parce que ci am na am na ñuy dem bay expliquer Babacar am na ñuy dem bay expliquer ñoom ki nga xam ne ça fait 19 mois ça fait 19 mois avant dossier bi Babacar wala ci biir dossier bi après dossier bi ah, bu koy faaw sax ñuy dem bay avancer que Maître El Hadj Diouf sax dafa dafa ëmbal déjà euh, am na ñuy avancer ci loolu seen affaire la loolu seen affaire mais xam naa ni Adji Raby Sarr bëggatul gis El Hadj Diouf bëggatul wax ak El Hadj Diouf bëggatul taxaw ci El Hadj Diouf bëggatul El Hadj Diouf jege ko du moom rek. xale bu jigéen bi nga xam ne nga jege ko ba pare ngay continuer di ko défendre. loolu parce que dafa ridicule parce que dafa ridicule moom lii mooy gagne-pain moom bu taxaw lay wax Ousmane Sonko violeur violeur doo am leneen lu mu def. amatul dossier amul dara. d'accord li muy def mooy dossier tapale surtout. monsieur Touré après ñu dugg ci beneen. dossier baa ngi si yoon yaakaar nga ne dañ dem procès. procès pour dem procès dans un pays normal un système judiciaire bu taxaw bu ñu jëlee dossier bi yónnee ko instruction déjà il fallait mu gis ay éléments yoo xam ne xalaat na ni si suffisamment dëgër pour mu yónnee ko instruction mais gis nañu dossier bi amul dara mais le procureur s'est entêté entêté Bassirou Diagne Serigne Bassirou Diagne yónnee ko procureur léegi pro euh, juge d'instruction juge d'instruction dafa war a càmbar instruction mooy lan enquête mooy seet juge d'instruction dama koy wax dama koy rappeler toujours son devoir c'est comme un officier de police judiciaire dafa war a auditionner dafa war a constater mais déjà xam nga nee naa la constat et audition fini perte nañu élément bu important mooy élément de constat constat mooy lan neen nañ la yëf yi ci Walfadjri laa ñëwee ñu agressé ma nan kan ma fa nekkoon salle yi nan na fa tegee da ñëw nga xool est-ce que Babacar Touré li mu wax studio bi noonu la mel salle bi noonu la mel néeg ba noonu la mel tey néeg ba yëf yi amee kenn mënu fa demati parce que fexe nañu ñoom ñoo fexe ah dañ gis borom kër gi pour mu dàq ndeexari ak jëkkëram ñu génn fa ku génn foofu dafa génnaale meuble yi alors que juge d'instruction yeggu mm-hmm. ko soxla yooyu kër gi kenn du fa dugg comme ça ñu mën a ñu wax bañ a d' accord ñu ubbi ñu ubbi ñu ubbi yeneen ci ci information comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen gi. Mhm. Euh, démb euh, la ñu euh, mën nañ ne anniversaire ru village boobu di ba fa Bofa Bayot waaw comme mhm. li fa xewoon Bofa Bayot googu nga xam ne nii ay sunu ay compatriotes comme ni ñu koy waxee ay doomu Sénégal ñoom ñoo fa ñàkkoon seen bakkan ndax il faut ñu ñëw ci mbir moomu. ndax li ki démb la woon waaw démb la am 3 ans. te xam nañ ni Babacar Touré mi ngi ci dossier boobu en même temps est ce que enquête bi mi ngi avancé. d'abord bu nu jaalee ñi nga xam ne seen mbokk yi rob euh, ñàkk nañ ci seen bakkan mm-hmm. damay jaa wax ni ñaari dëj lañ fa am ñaari dëj d'abord quatorze personnes ñi nga xam ne dee nañu ñu rey leen fa boole ci am na keneen ku ci kuñ ci fekk defe naa mooy quinzième personne parce que bu ñu foree quatorze yi le lendemain gis nañu kenn ku sant instant manga defe naa boo xam ne après le bombardement de l'armée mm-hmm. il quatorze quinze morts mm-hmm. ñu jaalee seen i mbokk mais xamal leen ni même modus operandi bi am na fukki bakkan ñoo xamee robee euh, euh, rode nañu noonu mooy euh, le 23 octobre 2011 rey nañu de la même manière que nu ñu reyee 14 yi reyee nañ ko 11 doomi Sénégal en 2011 le 23 octobre ba tey mosuñ cee jàpp kenn présenté ñu kenn tribunal ñii ñu jàpp ñu ñu rey 2018 euh, dañu dugg ci àll bi ay 7 heures du matin ñu jàpp leen rangale leen toogloo leen fenn ba 11 di jot ñu tëral leen dóor leen ay bal ci bopp 2011 même chose ñu jàpp leen tëral leen 11 doomi 11 xale yu góor yoo xam ne dañu demoon uti bois pour jaay ko ñu dóor leen bal dara amu ci 2011 2018 chaque fois presque à un an de l'élection présidentielle présidentielle 2012 présidentielle 2019 2019 pour cette fois si mu ne parce que am na ñu ñuy wax ay mosieur Casamance parce que am na nit ñoo xam ne seen cin bu baxee rek dossier Casamance a tax ñu ne il faut ñu jàppale gendarmerie bi pour ñu trouver ay coupable pour trouver ay coupable c'est comme lan c'est comme Adji Raby Sarr bu ñu jàpp ne ko dem seeti ko ne ko jouer rôle bi quoi dinañ la jox xaalis mm. ñu gis benn waa ju tudd Maurice Badji ñu proposé ko promettre ko ne ko président dina def lii dina def lii dina def lii mu ne d'accord ñu endossé loo ko un rôle koo xam ne jàngul jongul ngeen baal ma expression bi ñu ñu ne ko mu ne da ngay inventé histoire da ngay wax ni diw ak diw ak diw ñoo ci bokk xam naa man am naa chance sax ba nekkuma moon Sénégal période boobu bu dugaluñu ma ci liste bi waa ji ne man Maurice Badji dañu amoon réunion bu ñu woote benn journaliste bu tudd René Capain moo woote réunion pour ñu dem rey ay nit hmm. ñu ne ko ah, mu ne mu dem ci kër benn waa ji tudd Aliou Badji boo xam ne Aliou Djiba boo xam ne moom mën na tappe ci ordinateur mu tappee ne ko tuddal ay tur mu tudd dix personnes donc moom ci boppam ne moom moo fekkee réunion bi nga xam ne le 3 euh, janvier lañ ko def di ngeen def réunion le 3 janvier ci ab dëkk publiquement ngeen wax dañuy dem rey nit service de renseignement yëguñu gendarmerie yëgul kenn yëgul yéen ñëpp ngeen préparé coup boobu pour dem defi ko le 6 xam nga ça c'est un peu olé mu joxee 10 liste 10 ci biir 10 yi am na benn waay ju tudd euh, Nafawut Ibou Sané Nafawut moom it ñu manipuler ko comme ni ñu manipuler Badji moom it ñu promettre ko les mêmes choses Macky Sall na la jàppale nañ la wuti liggéey na def moom it mu ne d'accord mu joxaat moom tamit 10 personnes yoo xam ne ñoom la gën a bañ muy 10 plus 10 ça fait 20 ci biir 10 yu mu joxee moom beneen dof encore bu tudd Jean Jean Christophe Diatta moom it mu ne d'accord na deal bi ñu koy proposé d'ailleurs ñoom ñu leen jàppee ñoom ñetti ñooñu dañ ñu nekk ñu leen solal maillot ñu leen jox ndëkki ñu leen alors que ñu ngi yi ñooñu ñoo constitué liste bi ñu wax ni ñun 23 la ñu léegi nag. 26 kon jàpp ne les vrais coupables nekkuñu. jamais non jamais été pris appris man wax naa expliqué naa parce que dama dugg ci àll bi man ak sama équipe. dañu dugg ci àll bi ñun ñooy les seuls journalistes ñu dem fekkee àll bi nga xam ne fa la ñu reyee nit ñi gendarmerie sénégalaise bi nga xam ne comme même tappale bi nekk ci kaw dossier Adji Sarr nee naa leen juge d'instruction masul teg tànkam ci salon suite beauté ba salon ba dañ na gendarme yi Sénégal mosuñu teg seen tànk fi ñu reyee nit ñooñu alors que man journaliste simple journaliste ak sama équipe ñeme ñu dem ba ci àll boobu fi ñu reyee nit ñi xool nan la àll bi tëddee encore beneen chose yow en officier de police judiciaire ñun la rey nañu nit ay nit fële gendarme yi demuñu armée ñi muñu ko dem population civile ñoom ñoo woote chef de village bu euh, Da Silva Edouard Da Silva bu fa Bayotte moo woo ay mbokkam ne leen ñii ñu rey fële suñu mbokk lañ bu fekkee ne rebelle yi ne dañuy rey waa Casamance yëpp nañ dem ñu reyaale ñu ñoo dem dem récupérer néew yi ak blessé yi génne leen indi leen ci tali bi gendarme yaa ngi taxaw croiser les bras nu jox leen ko loolu d'abord muy benn benn affaire bu ko xam ne kenn mënu la ko expliquer parce que le rôle de la gendarmerie c'est d'aller partout sur l'ensemble du territoire national ak nu mu mën a demee fu ñu ko wax ni crime wala délit am na fa mu leen néew yi loolu mooy d'abord Euh, le fait que ay civils ñoo xam ne sont pas préparés sont allés sur ce terrain là dañuy def lu ñuy wax modification volontaire d'une scène de crime bu ñu nee nit rey na fii rey na fii nit deretaa ngi tuur foofu kenn amul droit dem fa ku dul enquêteur bu bokk ci équipe bi mais bàyyi nañu population yi ñu dem ñu génnee leen léegi bu ñu paree ci loolu ñoom ñu ngi le 9 le 9 janvier 2018 la ki nga xam ne mooy Issa Diack nekkoon section de recherche commandant ñu daal de ko envoyé comme Rambo moog ay ay gangsteram ñu yegg si yegg si. Euh, yegg si Ziguinchor ñu fekk gendarmerie bu locale bi commencé on na enquête ñu ne gendarme yooyu yéen pousse leen fële super gendarme ñëw nañu ñooñu ñu jox leen liste ok ñii la ñu war a jàpp tak tak tak tak. ñu dajale ñu dajale le 13 dans la nuit du 13 janvier au 14 ñu dem débarquer kër euh, René Capin Bassène bi ñu ne mu ci liste bi ñu ne ko tip téye ko dem am encercler benn village bu tudd Toubacouta lépp lu fay xale bu góor lépp lu fay góor bu valide te sa tur nekk ci liste bi ñu ne leen rapatrier. yóbbu leen dugal leen ci kaso bi. ba tey ñoom ñëpp ñu des ci kaso bi. ñu ngi ci kaso bi. li lay won ni lii c'est ridicule ab mag Sénégal bu am quatre-vingts ans juróom-ñeent fukki at. defe naa kooku tal na leneen lu dul complot dem di rey ay nit quatre-vingt-deux yaa ngi wax boo fa bayoot yëf yi dara xawul dafa bayoot. kum xewee. yëf yi mu ngi xewee dans fore de Bayotte Est. moom ak Boffa Bayotte. mais ça fait onze kilomètres déedéet. Ah. mosta am. ñu lan mooy différence bi. entre Bofa Bofa Est ak dafa ni ñu ne la grand grand grand grand ak yëmbal rek. léegi nag waa Grand Dakar ñoo génn dem ba yëmbal dem jëli néew yi ñu tuddee ne drame bi Grand Dakar la xewe parce que parce que loolu c'est tellement grave que même l'armée le lendemain le lundi lundi ba ca topp xam nga yëf yi samedi la amoon le samedi le 6 lundi ba armée bi dafa boucler le village de Bofa Bayotte. parce que si on voit que la chaîne de responsabilité bu nekk armée amuñu renseignement ni yëf yi du fii kon problème am na ñu encercler dëkk ba léegi nag boo fa bayoot mu ngi nii Toubacouta nekk ca wet ba même bu ñu la nee sax rey boo fa bayoot la amee du benn doom yi boo fa bayoot bu ñu jàpp dugal ko ci kaso bi ci yëf yi amul Toubacouta la ñu concentré jàpp ñaar fukki nit ak ñett. 23 personnes ñu ñoom ñëpp foofu lañ. René Cappé dëkk. mais René Cappé Bassène c'est journaliste qui s'est spécialisé ci wàllu question comme tey rek tey nu mën ma toggee di wax bu ñu waxee dara ma enquête ma ne nu ñu wax du dëkk suba mënuñu xëy rek ñu ne am na ay rey ñu rey Fouta Babacar Touré bokk na ci c'est la chose. ñu xëy ñu ne René Capain comme c'est grande gueule moom fu heure bu ko neex mu jot leen lu ko neex ñoom complot bi ñu war a teg kooku mu génne leen mu ne lii du dëgg donc loolu moo xew ñu jàpp ñaar fukki nit ak juróom benn jàpp ci père bu 82 ans ba mu dee seen loxo alors que paa boobu 82 ans 1992 1992 ba keroog ñu koy jàpp kaso mosuloon dellu Toubacouta. muy Ziguinchor la dëkkoon Seyni Sané xam nga lu tax. Mhm. parce que pour ñi nga xam ne ñoo xam Ziguinchor amoon na rafle yu bëri ñu jàppaa yu bëri ñu ne ay rebelle la ñu dugal leen fii ak ñoom la bay jama ko xam ne naa ngi koy fàttaliku. Hmm. waa Toubacouta pas yëpp ba ci village alentour dañ ne Seyni Sané mi traître la moom moo ñu jaay armée bi bu fi ñëwee dañ koy rey. paa yi jógee prison bu ñëwee ñu ne Seyni du fi dellu si waat yi delluwaat a teg bi kooku nag la ñu fekk Ziguinchor nag waa mais sur les papiers yow yaay chef de village mu ne maay chef de village mais musuma fa dem. xalaat nga d'accord mais mais lan moo tax ba léegi procès amul. procès du am procès bu ñu am ay ñaar ñett nit je pense que la ñuy yóbbu xam nga loolu amul tax c'est comme dossier Adji Sarr bi rek parce que c'est vide. xam nga à part jàpp ay nit dóor leen ne leen waxal ni yow laa def li amuñu leneen tu t'imagines ñu ne rey nañu quatorze quinze personnes on s'attend à quoi une une une police une police scientifique sérieuse da ngay am ay bal ay douille ay photo de corps yu nit yi ñu rey ay armes yi nga saisir parce que bu ñu ne nit dóor na nit bal même fekkee ne Babacar Touré am na fetal da ngeen di jël fetalam ngeen xool ndax buy bi bal bi sama fetal moo ko tiré defuñu ci beneen encore lu doy waar section recherche laa leen wax de gendarme yëpp mabba jóg Dakar dem seeti leen foofu xam nga lan lañ fa fekk fetal maq dóob lañu jàpp ci kër Abdoulaye Diédhiou benn paawu sëriñ boo xam ne dakaar gii la nekkoon sëriñ la ñu jàpp ko si doomam bu tudd Cheikh Omar Diédhiou mu ne fetal bi sama papa moo ko moom sa papa mu ngi Dakar lan la mu sëriñ la ñu ne ko nu ñëw paa bi jógee Dakar fi ñu jàpp ko ne ko ràpp ci kaso bi mu ngi foofu ñeenti at fetal makk doon fetal de chasse mm-hmm. à loolu amuñu leneen parce xam nga lan mooy am xam nga lan mooy am xam nga lan mooy am dans un état normal mm-hmm. euh, nos lieux pour tous ces gens là mm-hmm. benn fetal la ñu toppee la ñu fekk ci loxol Cheikh Omar Diédhiou Cheikh Omar Diédhiou ni ñu koy toppee peut-être détention d'armes sans autorisation loolu maximum defe naa 3 mois de prison la war ko weesu alors que jëlal nañ leen ñeenti at beneen encore article 5 de l'UEMOA dafa ne dès les premières heures bi nga jàppee nit pour garde à vue da ko war a présenter un avocat ñun mois de septembre lañu gis ab avocat d'accord gendarme yi demuñu perquisition demuñu ci ci ci euh, defuñ ci enquête sur les lieux du crime juge d'instruction ba tey ñaari juge d'instruction Augustin Diouf ak beneen sant xaw ma nan masuñu dem fi ñu reyee nit ñi mais pire ñun gis nañ kii nga xam ne moo dem jëli néew yi wax na vidéo